asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen mbokku internet yi yéen ñi nga xamante ni safo di suivre euh, TV Info ci gox yu fasantikoo yi ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di ñëwaat ak yéen ci seen deuxième numero bi nga xamante ni mooy lu tax lu tax nag di émission bi nga xamante ni su nekk dañ koy def di génne li nga xam ni mooy euh, lii laaj Tiwaawan pour ñu xam ko ak yan solution lañ ci mën trouver pour mën ko ko régler tey ñu dalal ki nga xamante ni mooy euh, Pape ñu xam ko bu baax ci dëkk bi mu nekk moom aussi Ben. boo xam ni euh, di œuvre ci ci ci Tivaouane lu ko jëmale kanam euh, tey ñu am ko euh, ñëw fii ci këram dalal ko mu dalal ñu ñu waxtaan ak moom ci loolu xam ni ci lu bari ci lu ci nekk Tivaouane ci li muy liggéey ak ci li nga xamante ni. ci moom mooy ay perspective am ñu taaxillu ko déglu ko bu baax mu rotal ay xam-xam rotal xam-xamam ak xalaatam ci li nga xamante ni mooy dëkk bi di Tivaouane asalaamaaleykum Pape aleykum salam. pap Manglay ngi lay nuyu di la ziar di nuyu mbokk Tiwaawan yépp jiital ci sunu xalifa sëriñ Mbaye Sy Mansour nuyu njabootu Cheikh Sidi Hadj Malick yeeg ak njabootu mamborom borom Touba yi nga tamit ñun ak ñoom ñoo bokk dëkk bi ak sunu mbokk chrétiens yi tamit ñi nga xam ne ñoom it euh, lañu euh, di sant yàlla euh, di kontan ci daje bi ñu daje tey mu nekk occasion pour ñun ñu mën a échanger par rapport ak euh, lu bari loo xam ne ñun ñu ngi koy def surtout nag ci wàllu sociale bi parce que yàlla dafa dogal ñun bi ñu nekkee xale ba tey euh, yàlla nattuñu ñu am bëgg-bëgg ci di def ay action sociale euh, loolu moo tax mën naa ne bi ñu nekkee jeune ba tey ci loolu la ñuy yëngatu di yëngatu ci wàllu sport bi mais ku wax sport aussi pratiquement social ngay wax parce que c'est deux aspects yoo xam ni euh, kenn munu leen a kenn munu leen a tàqale euh, vraiment yàlla dogal euh, Tivaouane li may faral di wax rek képp koo xam ni fi nga dëkk da nga am loo yoral dëkk bi parce que Tivaouane c'est pas une ville ordinaire li ko waral mooy Cheikh Sidi Hadj Malick dafa romb dëkk yu bari ginnaaw bi mu demee Njarne ak gaay ga mu juddoo euh, dem Louga dem Saint-Louis dëkk yu baree bari finalement mu mujj ñëw sànc si fii Tivaouane kon fii am lu fi nekk mu génne fi àdduna mën nañ ne tey bu ñu turu Tivaouane yalla ak Cheikh Sidi Hadj Malick moo mu egg fi mu egg bi mu fi jógee njabootam yi fi bàyyi woon continuer œuvre muy euh, sunu mam Serigne Babacar sunu maam El Hadj Mansour ak euh, rakam ju ja Euh, maam Abdou Aziz baax mi nga xam ne daanaka xaw nañoo bokkandook moom tuuti génération ba ci maam Habib ak euh, ñi nga xam ne ñëpp ay sëtam lañu liggéey fi liggéey bu am solo kon tey jii képp koo xam ne yaa ngi yeewoo Tiwaawan rek loolu dafay war a tax nga am njukkeel loo war a delloo sa dëkk donc euh, mu nekk pour ñun un devoir ñu war a am taxaw boo xam ne war nañ ko def pour xool ñun aussi lan la ñu war a mën a def pour que loolu sunu maam Cheikh Sidi Hadj Malick defal ñu ñun waa Tiwaawan waxuma ñu delloo ko ko mais ñu bay ci sunu waar ba ñu xam ni ñun kontaan nañu ci dëkk gi ñu dëkk Tiwaawan Les euh, lolu euh, lu donc dégg présentation bi nga bu am solo def ci ak commencé euh, gis pap muy ci ñaari ñaari ñaari ñaari sur le plan politique mu gis sur le plan social aussi mu donc lan ak lan moo waral ñaari yooyu ñu choisir nga choisir ko di ko def. waaw politique moom euh, yàlla dafa dogal dama ci teel a dugg parce que bi may nekk euh, élève nekk li Malick Sy ci laa duggoon MDJ mouvement démocratique des jeunes te ñi ma ci daan àndal jamono yooyu sunu ay doyen la ñu woon ku mel ni ki nga xam ni ñëpp xam nañ ko mooy doyen Cheikh Gueye mm-hmm. booba temps yaakaar naa ne kuy yëngatu ci politique boo nekkul LDMPT wala nga nekk AJ da ngay jàpp ne yow sa formation politique am na lu mu des ci ñoom laa nekkoon bi ma nekkee Tivaouane yàlla dogal bi ma demee cees ma continuer di adhérer foofu euh, mun naa ne li ëpp ci formation politique bu ma jot a am MDJ moo tax ma am ko donc mun naa ne politique dama ko teel a dama ko teel a def te politique mook sociale dañu ànd parce que da ngay sentir benn jamono ko ni yow war ngaa mën a investir pour mën a am loo xam ne moom ngay apporter sa communauté. donc loolu dafay law ba pousser la à à ce que yow même boo deful politique ci ay jamono sax yaa ngi xool lan ngay war a mën a def pour contribuer ci développement wu sa sa sa dëkk surtout muy dëkk bu mel ni Tivaouane donc man politique loolu moo ma ci dugal yàlla dogal euh, bi may nekk euh, lycée Malick Sy ma am fa ay responsabilité jóge Tivaouane nag ñu bari looloo leen jaaxaloon ma nekkoon en 1993 le président du foyer du lycée Malick mhm. un lycée qui comptait plus de 5000 élèves Nous avons ma am responsabilité yoo xam ne jox nañ ma ko am lu apporté en termes de de de de de qualité ci gestion responsabilité bien qu'étant très jeune bi ñu jógee lycée Malick aussi ñu ànd euh, pratiquement adherte mouvement des élèves étudiants ressortissants de Tivaouane Mon naa idebi idée bi man ak Rasoul Diagne ak Mouhamadou Simbeng mi nek actuel maire ci ñun la won euh ñu taxawal ko ba tay ji sunu ay ay rak, ak suñu ay rak rakar suñu ay jarbat, continuer di def donc ci biir loolu aussi yàlla dogal na ma doon yëngatu fu ñu doon wax inda Monde parce que man dama bëggoon social dama leen a gis ñu yëngatu ci loolu ñu intéressé ma dama daan jàngi ba dem nekk ci activité Enda Tiers mu am lu bari nag loo xam ne jàng naa ko fa sur le plan social parce que Enda Tiers Monde li leen taxoon a jóg mooy jàppale ñi nga xam ne mooy néew di doole yi am na benn jamono sax ma nekkoon cordonateur benn mouvement bu ñu doon wax siggi bobu Enda ñoko ko créé woon di wër banlieue bi ak dëkk yi di xool nan lañuy mëna fexé a ba organiser nit ñi ñuy yëngatu ci ay activité économique yo xamni dina leen amal njariñ ci gi defe naa moom bon ko day xol El Hadj chanteur bi nga xamanté ni mom ci la inspiré ba ab génné ci benn album bu tuddi ci gi donc euh, lolu lolu am solo la waaw donc El Hadj mom mo moo nekkoon suñu responsable équipe parce que dañu amone benn équipe tuddee ko Enda art et culture pour dire que ni vraiment euh, social bi ñun dañ ci mag dañu cee nàmpatal ginnaaw nag bi ñuy juddoo gis suñu ay wayjur doon ci doon ci dox doon ci yëngatu mu nekk loo xam ne xëy na ci la ñu nàmpatal mais ñu nekk xaw a xàmme di ci dox lu baree bari mun naa ne lu baree bari lu ma doon def ci activité ENDA Tiers Monde moo ma inspiré fii bi ma ñëwee quand même occupé fi ay responsabilité quand sur le plan politique gën a taxaw au niveau de Tivaouane. ñu gis ni euh, politique. dafa doon lu nga xamante ni mën nañu wax ni dafa xaw a ingrat parce que buñ ko doy wax euh, définition c'est c'est c'est gérer l'affaire les affaires de la cité euh, ñu gis ci tamit ñu nga xam ni à chaque fois bu ñu demee dañuy dañu dañ koy dañ koy utiliser euh, pour leur propre compte nga xam ni dañ koy utiliser à des fins propres yu nga xam ni dañ ci séntu dara ndombal tànk wala dara donc noo gisee ni nga xamante ni noonu la fa actuellement ni politique di doxee fii ci Sénégal xam nga dafay dañuy faral di dégg souvent ñuy wax naan politique affaire àdduna la fii la yam les gens ont l'habitude de le dire mais man je suis contre ce slogan politique yamul fii yow loo xam ne da nga ciy jóge defal ay nit da nga ciy jaare dimbali ay nit ñu am xëy danga ciy jaare jàppale ay jigéen ñu am ay jumtukaay yoo xam ne moom la ñuy def da nga ciy jaare sa communauté de manière générale nga am njariñ lu baree bari moom nga leen di apporter mais suñu borom xéewal yi mu yor du ko jox directement nit ñi du ko il faut mu am fu mu jaar du ñu toog ba mu yàgg ñu ne xaar leen dafay taw ceeb wala dafay taw nangam toujours dafay am ci nit ñi mu jaar donc passoire yooyu les les les autorités politiques dañ ci am dañ ci am rôle dañ ci am place donc boo amee chance sunu borom li muy def di mu nekk ay xéewal di ko ja di ko yóbbu ci nit ñi muy jaar ci yow mais <laughs> munu munul yam ci àdduna bu donc nit ki war na ba politique mu am conscience lolu. que ni mën na ci liggéeyaale ëllëgam lolu mo jitu benen bi ci top aussi moy ndombal tank da servir un acteur pour bëgg-bëgg bi mu am mu nekk ci exprimer mais warul ne daf cee bëgg daf koo jaare daf koo ci pour am ascension sociale nan euh, servir sa communauté et non se servir de sa communauté donc nit ki bu xolé ci euh, ci ci anam bobu rek dina def politique bu sen je crois seigne Cheikh lolou lay faral di wax nan ñaar yi ku ku koy dundé do do goor moy diine ak politique donc politique warul nek lo xamni nit ki dafa yaakaar ni ki ci la wara jaar pour defaru euh, lolou mu don lu am solo ñu wax ni gis ni ci élection yi nga xamanteni moy local yi fi mu si mujj jaar ñu gis ni yaa ngi doon postuler ne pour nek maire euh bobu ba léegi bi bi bi bi nga xamanteni ci le verdict bi tombé ba nga xamni euh, ci lañu am suñu actuel maire muy Diagne Sy Mbengue ma koy nuyu de passage. euh boobu ba léegi taxawoo tamit yaa ngi wut lu nga xamante ni aussi euh, yaa ngi ci yaa ngi ci jéem a def lu tax ñi am ci yow yaakaar ba man laa jox tey jii euh, dëkk bi nga xamante ni mooy Tivaouane euh, pour commencer lan nga gis ci lu war a war a tax nga war a bëgg doon maire Tivaouane lan moo tax nga bëgg doon maire Tivaouane. waaw sur cette question boobu am na tuuti amalgame bu ndaw bu ci am.

am ay andando am tamit ñoo xamni ni ñom ñoom ñoo bokk di ànd sur le plan politique que ne nañ ma may ba ma concerter len waxtaan ak ñom diso ak ñom parce que euh, maire bokoy nek c'est pas un projet individuel c'est un projet collectif donc équipe mo koy def ay nit ñoo koy ñoo koy ñoo koy taxawal ay nit ñoo koy gérer ay nit ñokoy jëmmal ñokoy réussir donc nit ñooñu nga xamné yaakar nga ni tay ji bo demoon bakoy def ci ñom ngay andal def ko bala nga ci dugg il faut nga wax ak ñom recueillir sen ay point de vue recueillir sen accord bu ko defee su ngeen ni taxawal mu nekk un projet collectif man lool la gëm non lay dundé c'est la raison pour laquelle ma ne nañ ma may euh ma waxtaan ak ñoo ñëpp ku ci né segment bu ci né dafa am rôle bo xamné mom la ci jouer bis bu ma demee ba am seen accord nag muy xarit yi di soppe yi di àndandoo yi di tamit àndandu compagnon politique yi bu ko defee suñu tënkee dara su boobaa dinaa mën a rendre publique sama sama position mu nekk loo xam ne du jóge ci man kese mais dafay jóge ci mbooloo moo xam ne dañoo fas yéene ànd lu ñuy taxawal ñu taxawal ko. d'accord waaw léegi euh, ci biir loolu dañu gis ni politique mën loo ko def sans ambition euh, say ambition politique. par rapport ak fi nga nekk muy Tivaouane yan leen yan ambition nga ci am. samay ambition politique d'abord bu jiitu mooy c'est servir ma communauté. naka. d'abord xam nga nit du toujours rek comme li may wax parfois politique ndomba tànk politique dafa nekk un outil pour que li nga bëgg ci sa communauté mu mën a yomb mais du politique rek nga mën a jaar pour politigal sa dëkk pour defaral sa dëkk pour contribuer ci sa développement dëkk. Je donne un exemple. Quand on a créé l'association Sopel Amine, c'était pour nous de créer une tribune qui nous permet, en tant que citoyen, en tant que Domo nous nous apporter nos pierre à l'édifice donc c'est une forme de politique mais du une politique comme nous l'art de gérer la cité l'art de participer à la gestion de la cité ci l'ol loolu créer mu parce que nous def mais préciser encore une fois que mon 80 pour cent ñi nga xam ne ñoom ñoo ay membres association Sopel Amin, ñii c'est des gens qui ne font pas de la politique ni ñi c'est des gens qui ont ne ngi am appartenance politique APR gi ma bokk sax bokkuñu ko ak man bu association bi xewlé wala mu soxla ñun ñëpp dañuy ñëw taxaw parce que xam nañ ne lenn moo ci intéressé moy Tivaouane biñ koy def. Tout ko Seigneur Abdou Aziz Al Amin dañoo gissone dafa c'est une personne transversale Seigneur Abdou il a traversé pratiquement toutes les générations depuis waajuram Seigneur Babacar ba ci ay magam ba ci ay donc nous xamné kon ki buntu la pour ñun tarbiyé bi bëgg a suñu suñu kër Cheikh aussi. aspect aspect religieux bi daf ci wara a deug la lolou dinañ ci dinañ ci ñew ci kanam inshallah parce que dinañ ci waxtaan ci li nga xamanteni moy mouvement Sopé Lamine bi bi nga xamanteni taxawal nga ko té muy dox am ay tank yu djégo yu bax macha dinañ ci waxtaan légui mais euh, sank dama dégg nga wax ci euh, ci appartenance politique moy nga bok ci euh, parti bi ñuy wax APR bok ci nga xamni mom moy l'actuel maire de cette ville de Tivaouane muy Mamadou Diagne Sy mu nek fi mu bari ay wax nak yu bari ci dëkk bi que ni liggéeyul deful lii defulee te yaakaar naa ni boo leen nekkee nekk ci même parti mu nekk di liggéey yor benn ndombal tànk ci dëkk bi ndax di ngeen di toog di waxtaan ci lu jëm lu jëmal lu avancé dëkk bi parce que li fi dox bariwul. waaw yàlla dogal na man je suis conseil municipal mu nekk loo xam ne lu ma fonk la euh, je peux dire que ne li may raté conseil lu néew la saa yu ma absenté rek am na raison bu bu rëy bu tax ma absenté parce que avant ngay nekk maire da ngay nekk conseil municipal nit ñi dañoo investir ci loolu donc il va falloir que li ñu leen mën a delloo njukkal ñu fonk conseil municipal bañ ko xeeb li nga xam ne moom la am ci xalaat maa ngi ko fay apporter li ma mën a am ci contribution aussi maa ngi ko fay indi leneen li nag moi je ne sais pas l'organe d'exécution Khalat nga mën a joxe bu laajee werante ñu werante pousse ba fa nga xamné ne fa la suñu pouvoir mën yam donc en tant que conseil municipal en tant que responsable politique ñu bokk parti APR la vérité moy gëj na tok xeyna defon nañ fi ben ndaje au niveau de King Fat, Yagna. Euh, liñ ci jublu woon mooy fexe arrondir les angles ñun responsables yépp ñuy mën a yëkkateendoo di dóorandoo mais malheureusement jul aboutir ci loo xam ni lu am njariñ lay doon. lu waral lu waral lu waral loolu lan moo tax réticence boobu lan moo tax ñàkk déggoo boobu ba loolu ba loolu doxul. Euh, bon mën naa ne xëy na am na question yu ko indi beneen bi peut-être xëy na li fi mu li ci jiitu mooy gestion wu siège bi. parce que notre frère Mamadou Simbeng dafa tabaxoon benn chaise mettre ko à la disposition du parti bañ ca waxtaanee dañu taxawaloon benn genre collège ay administrateurs ñoo xam ni côté groupe bu ne am un koo xam ni moo fa pour ñu mën ko gérer bon mais euh, malheureusement ça n'a pas marché ça a créé des frustrations ba mu indi kenn ku nekk finalement nga mujj toog ci sa ruq bi élection présidentielle yi jubsee xëy na c'était l'occasion pour ñu dajalewaat recoller waat les morceaux ñu mën a ànd dem ci élection yi mais malheureusement loolu aussi doxul euh, li ko indi ci man li ma jàpp kenn ku nekk nag am nga droit def sa appréciation selon ni nga ko gisee ni nga ko dundee mais man ci li man li ma jàpp fa mu dépare mooy bi ñu nee euh, dundee Ndéné Sall du nekk le coordonnateur départemental coow lépp fa la jóge Euh, finalement am ñoo xam ñu andon ak le maire la ñu ne ñoom daal jàpp nañ ni mom le maire mom mo wara né le coordonnateur départemental té ñun ñu xamni depuis 2012 bi ndi Abdou Ndéné di né coordonnateur départemental di ci def ay moyens boba metti woon na parce que APR parti oppos opposition la won mu def ci alalam def ci dolem def ci leppam ànd ko ñi ko wara andal ba tay APR exi au pouvoir donc ñu nous suñu eu élection 2014 mu nekk une deuxième élection te avons bi lim fi def lépp wax de yalla mu réussir ko ci élection locale l'élection élection législative l'élection élection locale yé passé moo néwon tête de liste communale et départementale donc ñu avons mérito na ñu ko la coordination départementale Faut la coow li amee division am finalement ñu né comme déggoowuñu au plan départemental ba scission am le même format va se poursuivre au niveau communal donc finalement malheureusement il faut le dire ñu am ñaari comité électoral benn bi and ak Mamadou Sy benen bi and ak Abdou Ndéné Sall donc c'est pour dire que ni scission am ba tok am donc sur le plan politique nous ñun ñi nga xamné ñun ñoo bokk APR gëj nañu am occasion tok. Ta même bu lolu sax doon na raar ay yoon yo xamné dañuy lu lu ak conseil municipal. ñi waxtaan sur des questions politiques qui concernent la mairie. lolu pratiquement mun naa ne ay waxtaan yu raaroon la. ci sunu digënté donc euh, lolu mom c'est un constat ñun ñëpp dund nañ ko ñun ñëpp gis nañ ko mu nekk lo xamné nak nag baaxul ci parti bi au niveau local parce que la yaq mom mo ëpp. mais est-ce que du du lolu mo waral tamit euh, mën nañ ko tuddee sanction wala xawma té ñu nekkon ci même parti waroon na mën œuvrer pour que la bonne marche de la de de du du du parti wala mu parti bi gagné yi nga xam ne moy élection yi mu am ay ay ay ay ay friction té lolu nan nga ko jangaté ndax mo waral li nga xam te ni tey benn gisaguñu responsable politique bu nekk Tivaouane ñu jox ko ndombal tank bu tax ñuy wax alors que gouvernement bi def na limuy def ba paré ba fi ni ay ay ay ay lu jëm ci walu ndombal tank mën nañu wax ni buñ ko lay defit xana li ci dess barétul waaw may fàttali rek ne ñun euh, sunu groupe bi ñu nekkoon man fi ma nekkoon di ànd mooy groupe bi nga xam ne Abdou Ndéné moo ko jiite donc ñu ne woon ci ak euh, waa kër Demba Diop si ñoom sax ñu finalement ñoom ñoo nekkoon coordonnateur comité électoral bi nekkoon ci ak euh, Cheikh Ahmed Tidiane Diouf nekkoon ci ak waa Alsar bi nga xam ni waa si moom moo ko yore nekkoon ci ak waa model bu sunu camarade Sow nekkoon ci ak waa euh, kii parti Ablaye Balde bi nga xam ne sunu frère Alioune Sy moom moo ko doon jiite nekkoon ci ak ay yeneen mouvement yoo xam ne ay mouvement la yu nekk biir Tivaouane nekkoon ci ak ki nga xam aussi mooy sunu sunu mag Pape Thioub vraiment ngay sentir ne am une bonne frange vraiment de la crème politique de Tivaouane boo xam ne ci groupe boobu la nekkoon bon je ne sais pas parce que xawma après lan moo motiver décision président ba pour le moment joxagul Tivaouane dara pour le moment là parce que peut-être euh, dina am dina ko ko ci loxol doomu bon mën aussi friction indi mais franchement question bob, du ma ci how parce que en réalité lan qui wa lan véritablement la la position du président ba tax amul dara parce que tay dit bu ñu au moins mu am budul woon lu mu néew néew sax ben ministre bo xamni ni na biir jóge na bir biir as, parce que lool day facilité yu bari. parce que di nga soxla dara lo xamné il faut que ku ku ku sori ci gouvernement bi lijjantil lako mais bu fekkee ne koko yor xamul wala amulo ko xam ku nekk fofa dina jafé en passant aussi may fatali que ni euh, sunu sœur Seynabou Gaye Touré pratiquement joué un rôle bu mag mag ci biir comité électoral bobu ak ci élection yi mm, yalla dogal mom aussi nekkoon na ministre mom aussi ñu ko ci doon sentu mais ñukoy wax rek profito ci li ne bu mu décourager parce que affaire yi jeexagul donc pour revenir euh xeyna tamit président l'ol aussi neexu ko parce que il faut le dire avant élection yi à plusieurs reprises interpellé nañu dañu wax ne mais pourquoi du ngeen andat mais tolloon na fo xamni euh, véritablement c'était pas facile et même je peux dire que est-ce que l'ol aussi c'était pas positif parce que ñaari comité électoral wala ñett kenn ku nekk am fo xamné fa ngay jaar amaane xeyna lool bokuna bokk na facteur d'émulation ci ci ci ñi nga xamné ne ñoo doon acteur politique yi parce que kenn ku ne da nga doon sa morom pour wané né élection yi man ma tax ñu gagné ko donc mën na am xeyna bon bi ñu def parce que en en élection législative yi passé au niveau de Tuan on avait 47 mais ci élection présidentielle yi dem nañu ba am ba am 57 57 virgule bon xeyna amna yenen facteur ci intervenir suñ ci bëggee mën nañ ci ñëwaat mais daal xeyna division bobu semblant division bobu tamit amna lu positif lo xam mom mom la indi. deug la mbokk yi ñuy fatali rek tay ñu ngi am comme émission comme comme euh, invité ki nga xamanteni moy mooy euh, Pape Momar Gueye euh, di ko nga xamanteni acteur de de de de acteur social la nek aussi en même temps euh ko xamni tamit da fay dafay les politiques ci bir mais bo xolé ba ci bir li nek ci ci social mo ëpp li muy def ci politique ñuy fatali nga tay mom la ñam comme invité.